partir bon dañu koy tàmbale rek balaa temps bi duñu di ñu xoj ndaxte li ñu fi indi xaw naa takku lool dañuy daal di tàmbale ak euh, président Macky Sall ak ki nga xam ne ni moom moo di Khalifa Sall mi nga xam ne nii euh, président Macky Sall koo dem euh, ca këram daal di koy daal di koy jaale ji yaayam ji nga xam ne génnoon àdduna ni ki jamono yee passé ah, loolee nag daal dinay jur coow bu baax a baax ci réseaux sociaux rawatina ci fi nga xam ne moom moo di ci Facebook bi ndaxte ay publication yu bari bari tukkee ci yooyee am na ci bu ñii ne ki nga xam ne ni moom moo di Khalifa Sall dafa baax am na ñu koy wax nee nañ moom moo gën xool ci àdduna mhm. boo dee xool moom Khalifa Sall yaakaar ne comme nit euh, la dugal la kaso jiiñ la euh, la ne carrément yow defoo liñ la doon jiiñ mhm. ñu xëy xëy bàyyi la nga nga nekkaat ci ci ci circulation bi di daw di daw comme ñëpp mhm. ñu xëy xëy euh, te nee nañ ci jamono joojee nga xam ne ni yow sa wayjur boobu nga xam ne tey ji moom moo génn àdduna tax mu lay jaale wayjur sa wayjur boobu boobee mi ngi doon def sax ay sorti kenn mësu ko woon xam ba nga nekkee politiquement mais loolu moo tax tey ji ay caméra tiim ko looloo taxoon tey ji muy yëkkati kàddoom di wax ba euh, ay nit euh, mu ci jamono jooju mu doon jooyloo ay ay doomu aadama ndax doomam lañ jëloon tëj ko ci loo xam ne nii moom yaayam nee na euh, ca ba muy wax nee na doomam ji mu jur gëmul ne moom moo sàcc alal waxuma la alalu askan nee na daal ñoom mënuñu concevoir ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñenn ci internet yi que Macky Sall Khalifa Sall dafa permetre Macky Sall mu ñëw ci ci ci këram di ko jaale yaayam jooju ñoom daal moo tax dañ ko qualifier que euh, nit koo xam ne ni moom moo gën xol ci àdduna bi mën nañ koo wax waaye itam ku mën a muñ la ba tax na ay euh, publication yu bari juddu na ci ko naka noonee rek ay ay li nga xam ne moom moo di commentaire comme noonee nit ñi tam te nañ ko commentaire rek ñoom euh, ci ci ci li nga xam ne ni moom lañ doon wax léegi euh, ci Idrissa Seck ak keneen ak keneen ak ci taas moomee ñoom nee nañu bañ la ñoo gëm ne Khalifa Sall bëggu rangé wu ci Macky Sall day day doy waar ba tax na sax ci biir commentaire yi jiiñ nañ ko ne topp la jiiñ nañ ko tamit ne bu fekkente ne taxawul carrément ci opposition bi ak na mu war a taxawee nañ ko doon xaareek yooyu ca ba mu nekkee kaso nee na bu ci taxawulee carrément nit ñi dañuy jàpp ne kon ba léegi nii moom mi ngi jàppal tànk président Macky Sall wala sax mu am ak moom benn link boo xam ne ni tey jii moom moo waral seen déggoo ba tax na yenn yu bari mënu ko waru koo mën mhm. ndax nee nañ boo dee xool tey jii bu fekkonte ne euh, Karim sa Wade la wala muy euh, euh, Ousmane Sonko comme ni ñu ko tuddee ci biir commentaire yi wala keneen ak keneen nee na amaana moom mi nga xam ne moom moo di président Macky Sall du am sañ-sañu jël tànkam dawal otoom ba foofu di dem di di jaale jeeg ñoom seen nee nañ est-ce que amul lu ci ginnaaw loo xam ne ni moom moo war a tax rek mhm. ak Macky Sall am boobu link bu ñu demee tam ba ci biir publication yi comme ñoom ñaar ku ci nekk dangaa toogee sa côté mhm. mu mel ni eh, benn euh, canapé bi ñoom ñoo ko bokk mais ñu xaw a euh, euh, soreeloo mhm. nit ñi tam ak ku ci nekk gestu ne jël nañ ay foto yoo xam ne nii est-ce que du en tam dafa am seen diggante moom daal ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais à fois ñoom ñooy poser la question ci biir toile bi mhm. ku ci nekk daal yaa ngay jàngat ana lan moo tukkee ci loolee mu mel ni ku ci nekk rek bëggoon ngaa doon picc wala ginax daal di nekk ci seen wet ngir xam ana lan lañ fa wax ak lan moo tukkee ci jooju wax sax dem nañu ba ñi nga xam ne ñoom ñoo accompagné woon président Macky Sall ñoom ñoo fekkee boobulee jataay mhm. nit ñi sax ñu ngi dem sax bay deen euh, di duga ci biir coow li ngir rapproche ku ci nekk daal yaa ngi posé la question waaye tam yaa ngi mhm. bëgg am réponse pour pour ci sa bopp bëgg nañ tam mhm. lépp daal leer ñu après ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo di population bi. voilà bi débat bi wu na et euh, ku ne bëgg naa xam. yan mhm. ponk la ñu waxtaanee ci seen jotaay boobu ndax dafa demoon da ngir jaale ji ko ci loolu kese la ñu yem war a am na leneen lu nga xam ne amaana ñun um, umpule nañu ko ci information. mais Salma ñu bëri tamit ñi ngi naan Marième Faye Sall moo dox diggante boobu. maanaam dem jaale mhm. bi te boo xoolee photo bi vraiment da ngay sentir ni que ils étaient pas à l'aise vraiment ak mbooloo bi nga xamante ne amaana ñoo gunge woon président Macky Sall mhm. da ngay sentir benn hypocrisie boo xamante ni bi ngi amoon ci daje boobu boobule donc parce que tey jii dafa neexu ci xol nag qu'on le dise parce que tey ku la yéene kaso kooku yéenewu la jàmm mm-hmm. dafay doon lu doy waar nit ki yéene la kaso ba yenn mbir yi tilimal sa image à vie parce que tamit mm-hmm. nga teg nit ki yenn métier yoo xamante ni dafay euh, durer tout au long de sa vie ba pare mu am métier nga tourné ñëw di ko jàll dafa doon benn image boo xamante ni vraiment dafa doy waar loolu mm-hmm. euh, juste en tout cas en deux xam naa ne daal euh, li nga xam ne am na sénégalais bu ne boo amoon dëj tey Macky dem jàll ji la doo lay wax parce que aussi c'est un simple citoyen au-delà de toutes ces fonctions-là qu'il occupe c'est normal que nit am dëj mu xamante ak moom ñëw jaale si ko ah, bu boobaa nag ñu gis leneen ñu doog a wax mais fu nga nii nag aussi nañu limité wu ci euh, acte social bi nga xam ne c'est ça aussi qui fait le charme du Sénégal quelles que soient les yenn circonstances yi bu xewee nit ki da ngay bàyyi nga dem gisanteeg nit ki di di di di saafante parce que aussi loolu c'est ça fait partie de la cohésion sociale. surtout ça surtout <laughs> surtout que Marie euh, xam nga euh, moo njëkk dem euh, ja ja jaale donc donc donc donc Khalifa Sall xam naa bi mu demee xam nga rek jigéen dafay amal njëriñ. jëkkëram borom këram et et donc du coup elle a dû comprendre que moom Mariam Faye que ni il faut mu dimbali. il faut mu mu defaraat diggante bi parce que amaana xëy na mu gisee diggante bi neexu ko mm. et que Khalifa Sall aussi euh, nit ñi euh, euh, kilifa la ci réew mi te war dafa war a am ay position au delà de seen diggante sax li nga xam ne daf nara nar a am donc dañu war di waxtaan di di déggoo puis expérience Khalifa Sall peut-être aussi Macky Sall war na ko mën a soxla xam nga moi je suis pour une grande coalition des compétences de ce pays euh, autour des intérêts euh, justement euh, autour des intérêts justement du pays mm-hmm. bu loolu amee rek euh, euh, tey ni man bu doon sama sago. Mhm. mais loolu ay Allemagne rek nga ko mën a am. <laughs> dans les grandes démocraties. Mhm. ay nit contrainté. Mhm. mais finalement bu ñu paree ay élections autour euh, d'un d'un d'un de l'intérêt commun ñoom ñëpp ñu dajaloo ku nekk ñu xool sa compétence. pour pour pour pour que mën a développer seen réew. bon mais bon c'est dommage. dañuy daal di jàll ci leneen loo xam ne daal na yitteel ñi nga xam ne ñoom ñoo di sunu mbokk internautes yi ndax vente d'armement ca France indi na coow ci réewu Sénégal. Sénégal bu baax a baax bu ñu dee xool réseaux sociaux yi ñu bari ci euh, doomu aadama partagé nañ ko euh, donte ne sax gis nañ ci ñoo xam ne euh, comprendre ñu exactement lañ la ñu bëgg wax ci ci mbir yi mais ñoom ñu ngi ci doon wax seeni xalaat comme gis nañ ay publication et tout ba tax na ci ci ci ci xibaar bi rek Sénégal ginnaaw bu ñu xayma 2011 ba léegi Sénégal dafa jënd lu toll rek ci ci wàllum armee lu toll ci ci ci ay milliards ci 237 milliards yu toftal tuuti rek ci suñuy koppar yoo xam ne nii Sénégal daal dina koy jënd ci wàllu wàllum lu jëmee ci arme foofe ca ca ca diwaanu France bu ñu génnee nag boobu la information mooy que euh, fi nga xam ne moom moo di assemblée nationale bu France ñoom ñoo toog ba xayma ne dañuy xool dëkk yi nga xam ne nii comme dañuy à chaque année ñuy càmbar. Mhm. dëkk yi nga xam ne nii waruñoo mën a jënd arme ci ci lu légal wala muy mu légal am na ci dëkk yoo xam ne nii euh, waruñu euh, dotew yenn yenn xeetu arme yi. Mhm. loolu ñoom ci loolu lañ tënku ba tax ñu daal di koy xool ci seen assemblée nationale. ci mhm. ginnaaw gi nag la ñu génn ab rapport boo xam ne dafa génne dëkk bu nekk ak la nga jënd ci arme mu mel ni diwaanu Afrique boo fa duggee euh, Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ni ñoom ñoo jiitu nañ ci ñi jënd ci arme yi bu ñu euh, génnee ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Algérie ak ñeneen ak ñeneen Sénégal daal bokk na ci dëkk yoo xam ne ni ñoom te lañ jënd ci euh, ci ay arme ni ki ak léegi dafa daal di bari lool ba tax na dañuy dem sax bay koy natable ak ki nga xam ne moom moo di dëkk bi di waa Mali gi nga xam ne ni nee nañ ñoom ñoom ñoo nekk jamono ji ci besoin yooyu te ñun ñu raw leen largement ndax Mali boo dee xool ci ci lañ nekk boobu ba tey ji ñu ngi ci à chaque fois Euh, ñun ñu lawle raw leen largement ci wàllum jënd jënd jënd arm yooyu mm-hmm. ba tax na am na ci ay wax yu ci judd ci biir ay commentaire rek yeneen yu ñu mel ndaxte boo dee xool am na ci ñoo xam ne nee nañu Sénégal jënd ko pour boppam parce que fii bu ñu dee xool lu tool noonu ci ay milliards ci arme euh, ci arme gisuñu euh, mu mu ñu ñu ñu wane ko fii mais il dañ koy jënd di ko mayewaat. Mhm. ñoom am na ñoo xam ne nii ci ay doomu aadama seen xel ñoom jàpp na ci lool nee nañ daal bu ñu dee xool Sénégal du moom moo jëndaloon boppam loolu mais dañoo jënd pour pour maye am na ci tam ñu ciy dem bay bay wax naan. su fekkente ne xiif ak mar mu ngi ñu rey ñuy jënd lool depuis 2011 te ñaari euh, euh, euh, nuñ ko wax ñaari gouvernement mhm. toogoon nañ fi ñuy jënd lool ci wàllu arm ba tax ñu xay xayma ko ci ay milliards te Sénégal ndóol am fi xiif am fi teg ñu am sunu jàmm ak sunu salaam mhm. day mel ni kon soofantal mi ngi ci ci diggante nguur gi ak ñeneen xëy na commentaire yu ci bari duñ ko mën a mhm. lire ndax dañuy bañ temps bi xoj ñu te li nga xam ne moom moo di information yi daal nay takku Salma. macha allah takku na information bi nga joxe aussi gis nañ ko ci bi ku ne nga ko comme ni nga ko gisee. Mhm. mais bon peut-être que euh, li tax mu jënd arme yooyu ñun yenn information yi mënuñ koo xam. mais mhm. comme ko gars yi defee rek commenté ku nekk wax sa xalaat. wax sa xalaat loolu la mën a demee coono. Mhm, ba tax na dañuy daal di jàll ci leneen nañu jëm euh, ci ki nga xam ne nii moom moo di Cheikh Yérim sekk ku ne xam ne ne jamono ji mi ngi def toile bu baax a baax a baax moom nag liñ koy tuddee du lenn lu du rek doomam joo xam ne dafa am lu toll ci 19 ans et demi. moom la ñu daal di jiiñ viol fële ca fi nga xam ne nii moom moo di ca Mbour Saly euh, Portugal sali sali moom foofee ca sali nag xale bi dafa école bi nga xam ne nii fa la doon jàngee fa lañ ko jiiñee ab viol ci xale bu euh, toll ci 15 ans. Mhm. ñu koy woowee Louise yaakaar naa ne Louise moom jamono ji euh, turam euh, taf nañ ko fépp xool ci réseaux sociaux yi ndax ku ci mhm. nekk partagé nga nga li nga xam ne nii moom moo di njàqareem ak ak tiisam gi nga xam ne ci la toll ndax nee nañ boo dee xool même su fekkente ne li nga xam ne nii moom moo di dossier ya moom ca ca loxoy yoon sax mhm. nit ñi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi continuer di ñaxtu parce nee nañ li nga xam ne ni moom moo di viol bi diggante bi mu amee ba léegi nii xale bi kenn tegoo ko ko loxo mi ngi mi ngi mi ngi vaqué ci ay occupation mi ngi jàngi mi ngi wàcc école ba tamit ba ñu leen jegee a bàyyi comme ko bëgg a bàyyi ba am am ba mu def examen ak jàmm su passé moo xam mu jàll mu bañ a jàll ñoom mhm. dinañ ko dàq ci jàmm ak salaam Sidi Seck waaw moom la moom moom ñuy woowee Pape Sidi Seck ñu gën waa école bi sax presque mën nañ ne Pape Pape Seck lañ la ko la ko ñu bari xamee looloo tax réseaux sociaux yeeg lu ci mel Kane ay pap ñoom ñëpp Pape Seck Pape Seck la ñu def ci ci ci turam ba tax na nag ñu ci bari la ñu def moom moo di ne rek daal di joxoñ baaraam tuuma ka ka nga xam ne moom moo di ci papa eh, ki nga xam ne moom moo di papaam mm-hmm. parce que eh, bëri na ci ñoo xam ne ni publication ñuy def boo dee xool sax doom ja baay ja la ñu la ñu jiital mm-hmm. eh, ku sa bàyyi jaar fii par force di nga fa mm-hmm. jaar te it doomam du war a mën a def lu dul lii dafa wàcc ba mu nuroo baayam mu mel ni comme ni ñu koy waxee saa su ne nit ki ca na muy defeek na muy waxee daal day wàll ba ci doom ba ci sët Euh, loo fi def du du du du du lu ñuy fàtte et tout mel ni sénégalais yi fàttewuñu benn yoon loolee ba tax na bi doomam amee ba yooyu la problème defaatuñu rek lu dul jëli wax jooju kolewaat mhm. ko ba niki démb sax moom euh, Cheikh Yérim Seck doon nañu taat doon nañu xaar li nga xam ne moom moo di euh, conférence de presse bi nga xam ne bëggoon mooy point de presse bi mu mhm. bëggoon amal niki démb mais dañu toog ba dernier moment ñu daal ne moom daal daal nay bàyyi boobule point de presse mhm. léegi da koy da ko reporté ba tax na lu ci bari daal juddu na ci ci ay wax mais daal Euh, Salma buñ dee xool ba xool daal mooy dëkk bi daal euh, waaw jaxasoo na daal mm-hmm. jaxasoo na ci ci côté bu ne ndax dafa am ay sujet yoo xam ne dafay sensible sensible boo xam ne nii mm-hmm. après nit ñi duñ ci mën a debaat wala tam soo ci dee débattre da nga gis koo xam ne ni sax dina toog du ci mën a wax et tout mm-hmm. li ñuy def rek moom mooy bind waaye nag bind gi bokk na ci féministes yi nga xam ne tam jóg nañu am na ci ñoo xam ne nii dañuy sax dem ñoom euh, génn nañ gis nañ ko ci ci réseaux sociaux ñu ñu ko ne dañuy dem ba ci famille ki nga xam ne moom moo di parce que booba tey kenn gisagu leen kenn déggagul ñu wax kenn lii ak information bi kan moo ko génne. Mhm. dem nañ sax ba gis naa démb rek ñu ciy tudd ay Sonko Boys nee nañ est li li Sonko Boys yi ñoo ko génne gis nañ yooyu la publication parce que euh, seen ay publication chaque jour ci la ñuy yendu ci la fanaan. Mhm. gis nañ leen wax ne est Sonko Boys yi ñoom ñoo ko génne par rapport ak yenn ci information yi nga xam ne nii moom Cheikh Yérim Seck da ko doon génne ñu ne dafa faral nguur et tout ñoom mhm. ñoo ko jekku instant pour mën Thioro gis nañu mhm. hashtag bi nga xam ne créé nañ ko en ci toile bi. Euh, je suis Louise et on espère que mhm. justice sera faite que ça Louise beneen euh, ku mën a doon rek ci moom bu fekkee dañoo bafoué li nga xam ne moo di sa dignité. Mhm. wala sa àq ak sa yelleef justice moo war a am léegi ñun on est euh, ni du côté de Louise ni du côté de de de de. Pape Seck parce que ba léegi ni si kenn kenn xamagul. en réalité lan moo si xew parce que dañ ne ko daf ko violé filmer et partager la vidéo après j'espère que justice dina am et que kumba am nday ak kumba amul nday aussi du ci am ñu juge rek ni mu waree bu ko defee après sénégalais dinañ xam nan la demee am solo ñu lay jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. xam duñ ci ñambaas beneen rek boo xam ne tam wër na toile bi. Ah. ba ñu ba ñu parta mais lu xaw a la rek bañ ko ci ñambaas lu xaw a reetaanlu la. parce que boo dee xool ni kii bi ki nga xam ne moom moo di président na kii mhm. ko na mu sañsee na mu mhm. def waaw feneen daal génn feneen ndax ku ne xam na ne président Macky Sall li mu soloon keroog sax. Mhm. daanaka du du ju colom xëy na tàngaay bee ko waral lu ni mel daal dinay jur kii ndax danañu génne ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko soloo comme noonu mu soloo woon <laughs> ba tax na gis nga kii toile bi amoon na fa te ñun comme dañuy xool li nga xam ne moom lañu ñu gën a publier waaye gën ko commenter mm-hmm. ñu moom la ñuy indi loolu da ci da ci di bokk am na ñu ñu def ay publication di wax ni li nga commandé ak la ñu la la ñu la <laughs> livré loolu dem na ba ci ba ci waxuma la Sénégal mais mm-hmm. Afrique